ciné mooy loo xam ne boo il a budd <laughs> di nga am jusqu'à la fin ah. mais notre culture hmm. dafa am nu mu doxalee noo xamante aujourd'hui pour que tu sois un homme et que tu respectes ta femme ça c'est un problème beneen bi mooy góor boo fi gis jigéen a le jour. Hmm. jigéen boo fi gis góor moo hmm. donc il n'y a pas de mbagg de débat pour man l'idée de base c'est que les gens puissent discuter pour trouver un terrain boo xam ne kuy denc jabar wala ngay sëy di ci mën trouver sa compte la confiance mutuelle la. je ma ai confiance sax te man joxuma la confiance xam nga ne couple bi du dem fenn. yow tu me respectes en tant que ta femme tu me donnes confiance. <laughs> man delloowuma la ko. Ah du dem parce que après da ngay def ay effort man ma lay après. avec ma jalousie maladive alors que yow tu m'as donné la mm. confiance. lu melni ni lu melni confiance lu melni respect Il mu am li ñuy mutualité ak réciprocité. ceci amul du dem. Mm. point bi moy nit ak xelam. je suis tout à fait d'accord avec toi man dama gëm humain, man humaniste la mhm. bo mo ne féministe dama lay méré je suis humaniste. Mhm. damay taxaw goor taxaw jigéen. Mhm. lool la gëm sama àdduna il faut être un humain. mais xam nga lu grave oncle Ben xel li ma la doon wax tout à l'heure défar dafa am solo. bu la nexé nga fekk ki gëna bon ci mbéd bi nga bëgg ko duggal sa kër. c'est ton droit le plus absolu. yalla sax nga xamné mën na fajj tous les jours every day. day toog di sétane di balé di défar di la may du temps pour que nga défar donc mak nit. bu la neexee nga gis ku la neex nga takk ko. Mhm. mais quand on va dans xel dafa doy waar da ngay xool ki nekk ci kër di sàcc rek xëy bàyyi sàcc bu dara réeré ci kër gi kan lañu njëkk xalaat. donte sàccatul. dëgg la xel maa ngi ci xel ñëw ñëwatuma ci xol de. ak comportement de ak moral de maa ngi ci xel. mu ngi mel ni kooku defar nga ko ba mu rafet <laughs> jox nga ko confiance bu la mënti ne hmm. mais li la Safia wax ci la gis nga bu génnee ba 20 heures fu mu jotee hmm. foofu c'est ton son cœur ne parle plus sa xel day ñëw ne la bif waa kii fan la ne une femme normale sax une femme normale sax sa xel di de waxuma laat nag ki nga xam ne da nga kaa jëli ça veut pas dire que dafa bon ça veut pas dire que changé wul mais dañu ni en toute chose il faut considérer la fin parfois jigéen da ngay def dara wala góor ba ci góor ñu ne la da ngay defar sa démb ngir sa tay xam nga lu tax woy bee tax woy bee tax di nga gis góor bu defar jigéen sax bu nekkoon ci mbedd ñu mer bëgg na ko lool de xol bi juk rek mais mu ne ko dimbali ma voilà kàddu bu ñaaw ma ma ma laaj la si loolu nga ne comme li ma joxee exemple boobu ma takk ko indi ko sama kër mu génn waroon ñibbi si huit woo ma ne ma eh man dafa am damay jaaraat woowu la supposons woowu la ah dina waaw suppose dama dama jël exemple ki nit

jox naa la exemple xëy na toog ñu fam bi yëpp toog mu teg kaamin ci alxuraan ne papa sàccatuma lu njëkk réer ci kër gi parce que nag loolu jëf pour la jëf bi oncle Ben dafa am lu ñuy wax ci vie doomu aadama mooy mooy mooy sóor bi hmm. yooyu bu amul woon nit du bàyyi xel démbam mais kon ñun sañu xalaat man je ne pense pas comme ça nag foofu loolu nag loolu nag mooy nit di sédd non loolu moo tax nit di sédd ëllëg moo tax nit di sedd ëllëg moo tax nit di sedd jëfi tayam ak jëfi démb franchement je ne vais pas penser comme ça quoi. je te l'accorde mais man sama avis laa doon jox. waaw man sama avis laa doon jox. dama bëgg ne malgré confiance bi ngay jox jigéen boobu nga defar yépp defar bi c'est une bonne chose y a toujours ce benn doute boo xamante ni day ñëw te kooku noonu lan moo koy indi mooy benn passé boo xam ne. Hmm. réparé wu ko à 100 pour cent wala benn passé boo xam ne. dafa xaw a doy waar quand je disais tout à l'heure gorbo gis jigen moko jur et cetera exemple bi auditeur bi joxe sank man ya quelque chose qui m'étonne amna ay pas dans notre société am pas pas yo xamne ils vont parler de ménage etc. cetera l'homme am pas yo xamne quand ils te parlent de leur ménage ak sen jabar tu te dis pourquoi je ne suis pas djuduma ci sen époque ñom tellement ni ñi yoré jigen wala ni ñi waxé ci jigen nga ne man lan motax lan pourtant nous, notre génération on a tout ñun ñoo civilisé ñun ñoo xam fleur ñun ñoo xam chocolat mais quand tu entends mag yooyu ñuy wax ci sëy yow da ngay am envie juddu seen époque mm-hmm. moo tax may wax chaque jour y a homme et homme-ton non non dama koy wax c'est les hommes ton qui nous fatiguent mais gis nga homme góor dëgg bu maki yar wala góor buy toog di wax xam na comment respecter sa femme lenn am na mm-hmm. mooy Sophie Gueye wala keneen mënul wax ba jigéen dem sut góor wala jigéen nangam mais faut que quand on est en couple mm-hmm. wala ñu nekk ci couple pourquoi on va pas dire à l'homme li la war ci sa néegu sëy au, nom de quoi on va pas dire à l'homme que ni ku jigéen ki wegee sëyam ko di moy yalla yow moy yalla au nom de la religion waxuñu culture de moy yalla waru qu'on le veuille ou non aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui brisent leur couple et la confiance dans le couple parce que dañ on jël ëmb ko ba mu rafet di la jël la protéger une femme qui sort de chez elle génn këram léegi dem liggéey ji am na ñoo xam ne tey seen sëy tas na te pourtant ay liggéey guddi lañu am médecin bu jigéen gendarme euh, liggéey n'importe quel liggéey alors que bi nga may takk papa xamoon nga ne lii laay liggéey ah, nga ma ci fiire di ma ci fiire di ma ci fiire ba suñu sëy tas ana kaddu ana contrat moral ana confiance alors c'est ce sont ces droits et émancipations aujourd'hui qui ont donné à, à la femme mmh. prérogative u mmh. dem mmh. liggéey ji nga gis ko ci bëgg ko takk ko fi may daanelee mooy les droits yi gën a kawe aaruna diine ko jox jigéen jox la droit weesuwul ñu def la buur teg la ci kër. Hmm. après teg bi dañ koo modifie de. teg bi dañ ko modifié am nuñ ko defee mais ñi jàng dëgg xam nañ ne jigéen buur dëggi dëggi buur la. ñi jàng dëgg xam nañ ne jigéen dëggi dëggi buur la. te loolu yàlla moo ko njëkk def ci jigéen kenn mënu ci dara après vous vous êtes nos rois si vous voulez mais ay buur lañ. <laughs> Abdoulaye. gis nga Sophie lu mu wax ni sànq maa ngi koy jéem a junj. Hmm. man damaa gëm ne Sénégal tant tant teguñu ko ci loxoy jigéen. du tegu ci raay. daa am ko kay bañ. parce que xelu góor ak jigéen yamul ci côté organisation. man sama jabar su voyagé une semaine. man maay raw muus bu léew. kër gi. parce que kër gi dina salte dina soxla dara du mu xam fu mu nekk. malgré kër gi lu muy rëy. rëy su ma ko laajee sama puso bu zone bi. te mu gàtt anamu day dem jëli ko indi la ko. pourtant xel la. jigéen ñëpp la ah. yow ko góor gi pourquoi tu n'es pas capable nga gérer kër mosoo fi gis góor bu gérer kër ba mu ne booy baal ma management ak gestion exact <laughs> loolu la moo tax jigéen Sénégal Ndiaye direction ak ministère yi ñu fi denk jigéen mooy les seuls ministères yi ñuy dox correctement man xam naa ci dara parce que ci administration laay liggéey la réalité tu vois yi teg jigéen mooy yiy dox day teg ci raay te kenn du fa nekk di def loolu la neex di font parce que jigéen naturellement dañoo am ak fayda jëm ci wàllu management dañoo am management naturel bi leen yàlla sàkkee ñun nag problème bi ñu am Sénégal mooy on confond culture et religion dañuy comme ni ñuy confondre ak alquran ah yan saa sax dañuy jël yenn tuur yi ne tuuru alquran la alors que tuuru arabe la noonu la ñuy diine ak culture diine dafa jël jigéen teg ko ca kaw a kaw a kaw a kaw a kaw alquran këree na fi saar di ci tagg jigéen di ci wax jigéen yonent bi xoolal nu mu doon traité ay jabaram histoire Haajara asia ñun ñëpp jàng nañ ko gis nañ ko génn àdduna bokk na ci ñu ñu mujjee dénk dénkaan ci ndénkaan yi waa ñoñam jigéen bokk na ci yonent bi confidence yu gën a rëy muy dee jabaram bu gën a ndaw la ko doon def soxna ay te pourtant xale la woon la moo tax gën di mindeef mhm. amoon confiance ah. di ko wax su demee ba jommi yonent bi laa la wax de dem ba ci biti ba mhm. xamatul ba ay idéem jeex mhm. day ñëwaat guddi jabaram si nga xamante ni lu mu ko màggee waxuma la ñaata at la di ko laaj mu koy xelal man noonu laay doxalee barki alxuraan fi ma toog nii su ma demee ba gàkk ci lépp lu mu ti doon hmm. il suffit ma wax sama jabar daf may jox solution te solution bu may jox day fo day xaw day dox par la force hmm. sama sama yaay xam na lañ ko woowee kër gi colonel parce que sama papa lu muy tàng tàng tàng yëpp bu ko ne te maire bi kii xam na ko dafa dal malade la benn day mais après day bàyyi mu seet parce que malade la benn bu père maa ngi ñëw may ma rek damay bañ fil bi perte ma parce que xam nañu su deful lu mu wax hmm. da koy gis man suñ ma ne bàyyil diw du sa xarit may entêté wu quelques jours laa ci teg. gis ko gis ko c'est-à-dire dafa am baatin bu nekk ci jigéen. Mm-hmm. malheureusement yenn góor yi dañ koy bañ. te xoolal dañuy sonal seen bopp. Mm-hmm. suñu jabar yi dañoo baax. Mm-hmm. confiance boobu noonu. contraire bi góor yi di duggee ci manque de confiance. bizarrement jigéen ñi ñoom confiance la ñuy duggee ci sëy am na ñoo xam ne xam nañu seen jëkkër yi di def. mën naa laal man su ma doon doxaan sama jabar bu mu bëggee jàpp. 30 minutes mu jàpp ma. mën naa laal parce que day anticiper samay moindre fait et geste. comprendre mais du ko def parce que ñoom dañuy ñëw ak poids de la société dañuy bañ ku leen caricaturer wala ku leen stigmatiser. parce que mhm. fii ko dajeeg góor boîte doo ko wax dara boo fa dajeeg jigéen ci bunt bi rek nga commencé di ko toj. Mhm. société bi lañ war a njëkk a réparer régler ko. Mhm. sànq pas bi woote ku muy nettali ay kàddoom moom ak père Baye Ngoné Alaaji Moussa Faye xanaa ñoom époque. ba ñu nekk ñoom ñoo waroon a gën a mën a maltraité jigéen te xoolal lu mu expliqué sànq nee jigéen bu la xasee ba fase perte nga parce que dañoo tegoon jigéen foo xamante ni du ay caaxaan. Mhm. fii foofu la waxee. ah waaw wax dañoo tegoon jigéen foo xam ne du ay du ay caaxaan. Ah, foofu la waxee. boo sàgganee ba jigéen fase la fase na la. waaw moo tax ki wootee Gambie ne la. confiance tembar la. waaw man xamoo fu mu egg jëm de. wax ak yoon na yem eggalewul dafa. li nga wax ma laaj la lu muy tekki faale non non dama déedéet non ndax ba yow nangu woo wax ak man nangu woo ma laaj la maa nga laaj nga ne ma da ngay bañ a perdre fil bi waxal ba pare ma laaj pour daaneel daal man damaa jàpp sëy boo ci duggee ak deux pour cent de doute sëy boobu du dem muy rapport ak ñaar doute avant le ménage waaw avant bu la leeree ne dangay takk di defar te boo defaree it sa xel day ñaar bul takk sànq yaa ngi jox exemple célébrité célébrité mais la plupart du temps ay mariage yu duñ dem la qu'on se dise la vérité dañ lay jàpp tëj la ci biir kër gi yow su ku jigéen yaadul nangu ñu tëj la ci kër gi parce que jamono weesu na fi ngay toogee ci kër yow kese pour lan sax nga war a toog ci kër gi même boo amoon ay milliards ci biir kër gi pour man waroo faa toog parce que da nga am xel jàng am cerveau au même titre que l'homme la science amul fenn fu mu prouver que ne cerveau góor moo gën a fonctionner cerveau jigéen amul kon pourquoi nga ne kii da nga koy jël ab pour apprivoiser ko ci kër gi mel ni ku yor sa chihuahua di ko jox mu lekk. je ne d' d' intervenir nga ne ma ko delloo ndax hmm. li ko laaj nangu ko. laajoo ah, da a perdre fil la laaj. sama xel mi moo baaxul parce que moom la ma kii. ma laaj ma ne li nga wax ci jigéen hmm. doonoo am force boo xam ne doonoo am dimension boo xam ne doonoo toll foo xam ne doon leen a war a def noo xam ne. noo xam ne. ah maanaam comme li nga expliqué léegi doon leen war na liggéey war na dem bu kenn nangoo toog ci kër gi loolu nga wax ak tout ça. waaw loolu nga wax. Mhm. ma ne ba tax na ni jigéen di doxalee fi nu toll tembe tembe tembe tembe tembe. Mhm. looloo jaadu. nan la jigéen di doxal ni mu doxalee ci réew mi li ngay dégg tës li ngay dégg jigéen du ko def jël alalu jàmbur ñu jox la may bu njëkk nga lànk ne doo sëyi ëlbatiku nekk ci kër jàmbur am jëkkër amu far ñu lay surprendre ak yeneen loolu laa la laaj. ay cas particulier nga nekk. non non non bu ma nee cas particulier dama lay laaj. man sama jabar taxawaalu. ban waa de kan mooy toog fii naan jabaram day taxawaalu. man sama jabar wootewul tës. man kenn la man kenn rek la su ngeen bëggee mën naa noppi ngeen bàyyi leen ñu développé. mais man kenn la ànduma ci ak kenn. ma tontu sama question mais li ma ko laaj tontuuma. ma tontu il tourne autour du pot. et puis il est appuyé par d'autres. mais c'est normal. waaw c'est normal. ndax yéen a bokk yoon. yow dina nga sëy léegi. man li ma ko ah laaj dama ko ne li wax lépp ne jigéen ma waru koo ci kër kenn waru ko bàyyi muy kii da nga daa war di liggéey daa war di dem man loolu ñoom ñoo ko wax fi bopp la man li may laaj sañ naa ko laaj dama ne waaw sañ nañ la laaj ba tax na waaw góor sañu la taxaw waaw nekkat sama kër nangam laa ciy doxal wala dama koy da nga koy waxtaanee. bu ñu génn si débat bi foofu sax sori na. waxtaanee waxtaanee sax sori na. amoo droit toog di imposer sa ay kii. dama ne foofu sax sori na léegi ndax génn góor amul yow bul àndateeg diw. waaw. da nga koy waxtaan. waxtaan bu ma et bul àndati ak diw. déedéet amoo ci benn droit. ngeen ci ñëw loolu ah. je pense que. benn droit amoo ko ci. lan ah. la. mel ni mariage forcé. E, que ça soit la dernière fois ngay ànd ak diw. amoo ci benn droit. waaw sa doom nga koy def loolu doo ko def sa jabar. waaw noonu laa koy xew ngeen wax kii waaw quand même. bul jéem a gas sama xel wala sama maay xamoo bu bu soo la leeree ne nangam kooku c'est pas votre problème et. diw bugguma nga ànd ak moom meetar. yow noonu may wax amoo ci droit. amoo ci benn droit avec plaisir. loolu sa doom nga koy def. doo ko def sa jabar. loolu dafa ñaaw sax ni ba nga koy labar da nga doon neexal. xam nga man la moo eh. xam moo met ci affaire yi. Eh, eh. koo gis muy dëgëral këram. ba muy ba muy labat ba muy labat jabaram da doon neexal. ba muy labat jabaram da doon neexal. billaahi ba ngay labat da nga doon neexal. xamoon da nga doon neexal kenn du dem kër jàmbur di labat di fa jaay doole eh, amul fenn waxuma dara allez-y dem leen waaw je ne vous pas empêché de parler li mu wax dama ko wax dans mes raisons ah diw ga ne ah may la diw bëggatuma gis nga ànd ak moom. Ah, ah, a compris. da ngaa changé boo ko defee da ngaa changé sama doom bi fa fanaan. man bokkuma ak ñii de nga xam ne nee na jigéen da ko war a raam nga xam ne doon na gis. man de maa ngi sant yàlla sant daal nga pat ma fi. soo takkee sa seytaane moom am na yenn yoo xam ne. <laughs> seytaane. laa <laughs> ilaaha ci gis mun ko. waaw lan mooy loo ca gis muñ ko. <laughs> loolu la exactement waaw loo ca gis muñ ko. waaw loo ca gis muñ ko. bu yàlla na ko la neex sax nga wàññi di ko gis de temps en temps. def loolu waaye doo ñu naan eh, goye <laughs> waaw man de li ma bëgg ngay def wala nga génn sama kër. barke yaa rasulullahi. barke Cheikh Mouhamadou. mbedd luñ fort ci mbedd. li ma bëgg ngay def wala nga génn sama kër. daa fekk takkoo xam na. peru loolu bu la xoolee rek sa xol bi voyagé ñëwaat. Ah, muy def safaan. non non bu def safaan lan. ah loo ci xam. xam nga doo ànd ak diw. waa léegi bàyyi ñu wax. mais xam nga euh, yàlla dafa def benn affaire ci jigéen. métti na mooy moom mooy humanité. Mhm. humanité mooy. Mhm. la femme. waaw. pour pour la vie il va il va il va falloir passer par la femme. waaw. donc humanité bu ñu koy wax. waaw waaw tax jigéen. waaw donc moom. sa véritable place. waaw c'est le foyer. c'est le foyer. man sama gëm-gëm. moi base ah. mooy. moi mooy mooy defar jigéen mooy defar société. gis nga société bu yàqu. société bu yàqu. te jigéen ña la doole jigéen ña yàqu. waaw jigéen ña yàqu. bu so dëkk boo gis mu développé c'est parce que dafa am ay jigéen yu yu brave. <laughs> yi ancien empire yi fi jot a am yëpp wala ay royaume yu mag yi fi jot a am yëpp. Mm. ñu leen di tudd dans l'histoire ont une fois u mm. deux ou trois fois quatre fois. des amazones. des amazones. da ngeen tey de. ay yàq réew mi benn ay benn ngeen ngeen ne pat. yéen ñëpp ngeen noppi. kenn duggul mais li ko dalee ci Benoît wër ba nii ñu ngi yàq réew mi. gis naa ci barke Borom mm. Tuubaa ci tànki yàq réew mi nanu nekk. ba pare ngeen ne pat. te defar katu réew mi rek lay ji. ngeen ne pat waaw boo demee boo demoon tey Ashanti. Mhm. amoon na ren nga dem Égypte ay ñoom Nefertiti Abyssinie. Nubie loolu dox di wëndeel ñoom ñëpp. amoon nañ fi ay gestion féminine yoo xamante ni ay gestion féminine yoo xamante ni ñoom ba ñuy nekk soo bëggul nga ñaant baat ñun waaw am nañ Yacine Boubou Data Yàlla ñëmbat Mbodj waaw tuddal Aline Sitoé Diatta bul tax fi nga taxaw na ah, ah, Aline Sitoé Diatta xam ne fi nga taxaw ah, tuddal ñi su subaa ngay xam ne ñi ànd ak yow ñoo ëpp ñi àndut ak yow su subaa ngay xam ne ñi ànd ak yow ñoo ëpp ñi àndut ak yow ndax li nga taxaw ak fi nga taxaw day dëgg. am na ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu seen son. tout bari ñu bari. fi nga taxaw baax mais kii soo xoolee commencé suba di nga ci gis lu ne. man waaw baax na waaw sa yaay da ngay tudd ñooñu sa maam bi nga fi tudd sax. yow yaa xam ne ay asanti kotoko. yow kii bu ko déglu <laughs> kii bu ko déglu. kotoko. Ah, takk gànc. wax na ko dëgg nee na day takk gànc. defal ko ba baax bu takk gànc de. tu m'as donné la dépense quotidienne maintenant damay am di quotidien. bu takk de. le monde a changé. bu takk gànc de. jigéen day yokk bi ma naan bi ma naan la femme c'est c'est le support, c'est l'humanité. On est d'accord avec toi. Ça veut dire que c'est la société, c'est la, c'est la maison, c'est le foyer. Par rapport à l'éducation D'accord. jigéen ñoo xam je mets ma main sur le ah, bu ma si yàlla tombé woon. waxoon ne takk ko. waaw merci beaucoup ko. jërëjëf waay. <laughs> Eh, eh, Sofia. yaa kii daf ma xamul. xamulee dama bàyyi. donc bu jamono bi àndal wala man yow laa àndal yow. yow laa àndal père. moo ne du ma takk gànc. donc du coup. <laughs> du eh. am société bu nga xamante ni. Ah. la <laughs> femme domine uh-huh. dans la société où nous sommes uh-huh. par le nombre uh-huh. en termes de population ñoo fi ñoo fi ëpp par la pensée sax pieuse femme moo gën a dal moo gën a calme <laughs> par l'hospitalité ak humanité femme ah. mooy yërmande ci moom moo ko ëppee bañ ne sax yenn kilifa sax dañuy ñaan yàlla tawloo jigéen ndax mooy signifier prospérité ñaari jigéen laa mais toll nañ ci société bu nga xamante ni la femme joue un rôle bu nga xamante ni waru ko woon jouer tekki na dafa rate rôle am dafa raté li mu waroon jouer mhm. ci kaw loolu man sànq bi ma doon expliquer waxuma ki nga xamante ni rëcc na man ki nga xamante ni yéen ñaar da ngeen amoon antécédent bi war a tax amoo ci moom confiance laa nekk di expliquer d'accord confiance à pour pour avoir une confiance à 100%, Sophia sans que ngi est-ce que tu wax me may ma wax mhm. pour la confiance avant de yegg ci la confiance il faut commencer par concept de soi estime de soi travail de soi amour de soi loolu non, bu regroupé wul vous matul confiance en soi confiance vous avez maîtrise la plus grande force de l'homme c'est sa maîtrise confiance beaucoup ko da ngay am maîtrise si c'est émotion si c'est sentiment si c'est dévouement ni ngay doxeek ni ngay gérer ku jigéen ak ni ngay gérer sa bopp bu six suivre étape dès le départ da ngeen di raté base bi 2021 Sénégal am plus de 1500 cas de divorce yu nous wax ci hôpitaux yi nous bind ko journaux mhm. ça veut dire que les divorces même nous, ëpp sax cas de. d'accord cas de cas de mariage. Mhm. lan il indi loolu lan mo waral ngay un mois deux mois trois mois. une semaine même wala sax avant sax nga koy consommer ba c'est parce qu'il y avait des choses yu nga la à la base voilà euh, Ben, rek. Euh, émission bi jeexna wa li may rek oh, oh, jeex de. Ah, sa jabar xamal passé. war pas de ko passé après ngeen xamante. ba pare bu leen on ne dit pas tout. on ne dit pas tout. dafa nàkk rek. yow laa bëgg wax. dama ne jigéen dina la mës a téye def la loo xam ne di nga wër liberté. non non xam nga gis nga am na am na yenn mentalité <laughs> tant que nit a koy am si adduna c'est pas c'est-à-dire dafa mës a tumuranke. Abdel da ko mës a nax. yaa ma dégg kii daa mës a ko am émission jigéen émission bi xam nga man ñan laa koy déjee. déjee. les femmes des immigrés. ci xoolal bëgg jigéen jigéen jigéen rek. femmes immigrés yi nekk Sénégal. ak a bëgg jigéen.